ñeenti maanaam julli yooyu ñuy net ñuy wax tey julli yi dañu war a def tey waaw eh, te ñaar rakka la rakka bu naan bu ñeent bi ñëwaatoon li muy jëkk wax mooy lii lan la li muy jëkk laaj mooy lii lan la lii moom bàyyi ma ko fi hmm. kon maanaam yow naafile yi ñuy wax naan nan ko déedéet yooyu caaxaan ah bon maanaam bis bu nekk naafile dana war a def waaw amul ci charia islamique hmm. déet ah bon loolu déet ñun dañu gis ci xuratul ay bu seen soy bu mu bind bis bi lii bis bi lii xam nga boo ne sëñ Souhaïbou nag. ndax moom day sama papa. Mm. yaa ngi dégg. Mm. moom boo tuddee tur rek. man doo mën ma demaat parce que Souhaïbou Mbacke moo la jur rek. Mm. Serigne Abbas la jur. ku Serigne Abbas jur sëñ Souhaïbou la jur. moo tax boo ko tuddee rek man loolu dama dama cee noppi. damaa bëgg kon ñu wax ci leneen. ndaxte sëñ Souhaïbou moom kon bëgg xam yeneen yeneen dànkaafu yan la ko am. mais lim bi doy na la wala doy la. léppam doy na ma maanaam sëñ Souhaïbou. comme léegi war neel man xuraat la. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما واجعلني من المتقين إماما اللهم آتني الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا mbokk سنغالي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 sunu diine gi Sénégal ñu ñu jàppe ay nit diine ñu nekk ci bopp yi nga xam ne bu ñu nee diine rek dañuy jëm ñan tuddee doomu soxna mooy waa kër Sëñ Abbas wala waa kër Sëriñ Touba wala waa kër Alaaji Malik wala waa kër ku mënta doon tappale ak caaxaan yi gën a mag ci Sénégal fenal yàlla ak yenn tam yu gën a mag ci Sénégal fowee diine gi def ko ay canal yu gën a mag Sénégal mi nga jóge ci kër yooyu moo tax mbokk ndaw wallahi di ma len waxon dama len kay watatal ne len summa wallahi ngeen deglu man Medoune job mo gën ngeen deglu seen kër yi ngeen jàppee ay këru diin tekki wuñ dara tekki wuñ dara ku ci dàq fenal yalla nga ne ki ku ci dàq fenal yentu saa nga ne ki ku ci dàq nëbb deug nga ne ki fen rek lañ muy ak nëbb deug léegi ñu yow ñu and vidéo bi ñu and def ci ay taxaw seplu ndax li Sénégal dina jëmele Sénégal kan mbokk Sénégal li du deug wallahi ñi ngeen deglu leen da leen sank même bu bu dé dañuy wax dëgg waxu ñu dëgg dëgg bu joggé ci borom bi subhanahu wa taala dañuy caaxaan dañuy caaxaan dañuy tapalé lii du dëgg li ni def ni ci diiné gi nin paaco way diiné gi ba kenn ñemewul wax dëgg ndax lu wa kër señ Tuubaa wax rek même bu dé du nonu kenn ñemewul tuddu ko ki li dafa leer lu leen ki manam julli yooyu ñi net ñi wax tay julli yi dañ wara def tay wa euh tay ñaar rakka la rakka bu ñaan bu yent bi ñëwaatal limi jikko moy li yalla am li muy jëkk a yi ñuy wax. gis nga déglu leen ko mu ne julli yi nga xamante ne si déglu leen ko de moom moo ko wax julli yi nga xam ne sii te loolu dëgg la li mu wax wax yentu saasam la wax de lii mooy problème mu Sénégal. nga xam ni ko fi wax diine qaala allahu qaala rasul ñu ne da ngay digal sëñ Tuubaa da ngay digal sëñ Sanyob da ngay kii ba ndax dëgg yàlla gi ci boppam moo leen arrangé da ngay wax waxu yentu saasam boo ko waxee mu waroo ak waxi sëñ sooy bu wala mu waroo ak waxi ku mu mënta doon wax ju bu wuute ak waxu yentu saasam sànni leen ko fële ngeen xam ne wax jooju du dëgg wax ma mama saasam si si yentu saasam la ñu yónni yónni ñu ci keneen léegi dëgg yàlla gi léegi boo ko fi waxee léegi mu waroo ak waxu mag ñi ñu ne la da nga réew da ngay dingat sëñ Bamba wala da ngay dingat sëñ sooy bu wala da ngay dingat ku mu mënta doon kii li mu wax nii dafa leer yéen tappalekan ngeen bëgg ak naafeq ak koo xam ne dëgg yàlla gi dafa am looy wax am looy am looy desal lu sëriñ sooy bu wax gonga lu sëñ kiy wax gonga lu beneen sëriñ wax gonga waxu yent saasam daal moo dul dëgg ci Sénégal waxu yent saasam daal kenn du ko fa wax ci dëkk bii di Sénégal xool leen bii la kii ne kilifa diine la ne nitu diine la di nëpp dëgg yàlla gi ndax lan nee na déglu leen ko kàppale rek seen dëkk bii dama góole eh, bu bi ñëwaatoon li a laaj mooy lii la lii moom bàyyi ma ko fi. Hmm. kon maanaam yow naafile yi ñuy wax naan nan ko. déedéet yooyu ay caaxaan. abu. Ah ne ko naafile yi ñu fi bàyyi kon ay caaxaan mu ne loolu ay caaxaan la wax wax yenti saasam ba pare déglu leen de mu wax dëgg li nga xam ne waxu yenti saasam lii la Sénégal lii moo tere dëgg muy tarixa yi seen fen yi nga xam ne da ngeen ko jël teg ko ci diine yi ba ko weddi nit wala tamit nit ku bind juum ay njuumte kenn ci topp nit waxuma nag compour pour mu leer respecté nañ mag ñi respecté nañ ñi doon gor sax di bind serigne soye mbacké doon gor gor sax di bind di bind di bind di ki fi ñi fi nek mom kenn jéemut bind bind ñu jàngale won jàngalu kenn mais ki yoroon na daara au moins di jàngale wala dara mais téwut imam Malik ki bopam du moromu serigne soye bu yeen ne ngeen ay Malik yeen imam Malik neena na bu démé ba jamono ñu dégg ci wax bu woro ci waxam loo xam ne wuute naa njàngale yent salaa nañ sanni wax imam Malik ñu jël wax yent salaa salaam diine duñ ko ci kenn kenn du topp nit ci njumte boroom xam-xam boo fi gis fii leen benn wax rek lañ dul dindi muy qaala laahu qaala rasul mais à part loolu xaale Bamba xaala Maodo xaala Soyibu xaala Imaam Malik Imaam Malik xam ngeen du moromu ñooñu du yamuñu ko yamu leen ci wee Imaam Malik ci boppam du moromu ay seen sëriñ si ngeen toog di leen ngandeel di leen pataal bu leen neexee nag ngeen ne nag ñi ñoo raw Imaam Imaam Malik boo xam am na lu ñu ciy sànni fii waxu yonent bi rek mooy ki nga xam ne yàlla moo ko yónni waxewul bakkanam mais nit ku nekk sa wax am na luñ ciy jël am na luñ ciy ba bu dëppook xadis yenn saa ñu jël mais yàllaal ngeen mag ñi ba jàpp ni mag ñi duñ juum léegi lii léegi mooy problème lii mooy problème mu ne mag ñi daal li ñu fi indi donte lu bon la comme koor gi xam ngeen koor gi fi mu toll nii problème bi fi mu jógee mi ngi jógee ci njuumte mag ñi koor gi Sénégal mi ngi billaahi mi ngi jógee ci njuumte mag ñi bu le bu le bàyyi leen seen dof dof lu gi nag te ñu nekk nit ndax njuumte gi fi mu jógee mooy lan dégg nga sëñ bas Abdou Khadre dellu leen ci ay waxam pa man du ma ko nettaliwaat ndax di ngeen naan dama réew moo tax mais dellu leen ci wax ji fu mu jógee nee sëñ Bass Abdou Khadre nee na sëriñ diw sàngam nee sëriñ tuubaa koor ji bu daan ñëw muy rajab day tàggu sëriñ Touba soxbaan dafay tànk sëriñ Touba kon Ramadan kon waxi noppi muy sewul Ramadan day tàggu sëriñ Touba ne ko mi ngi ñëw te sëriñ Touba nekk fi dee seen delluwaay ci weeru koor ci li indi ñaari koor yi lool ndax dafa am mag boo am dafa juumoon mu ne weeru koor gi kat euh, buy dem day tàggu Serigne Touba loolu c'est faux amut weeru koor fu ñuy seetee weeru koor di ko seetee ci Serigne Touba naan si Serigne Touba moom weeru koor ci moom lay tàggoog tàggoo ko weeru koor du tàggu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weeru koor du tàggu Aboubacar Siddiq Aboubacar Siddiq bu weeru koor mu saan jot da daan xool ñuy séntu weer comme ni ko yenn sens jàngale yenn sens loolu la jàngale woon yii kon ñëw fi ci ay njuumte kenn du ci topp ay mag mag bu juumee nañ leen bàyyi ak seen njuumte ñu ñaanal leen yërmande yàlla borom bi subhanahu wa taala ndax koor yi ni mu ni mu kiiwee mi ngi kii ci ay njuumte mag lii mooy dëkk senegal lii mooy digat lii mooy contre mooy bu kenn wax wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa gi ci moom lañ ko jëlee te dëgg yàlla gii dañ koy war a leeral wa rabbil kaaba bu ngeen ko leeral di bàyyi nit ñi ci ak cànkute wala mag bind ak réer ngeen bàyyi ko fi ah yéen a ngi réeral sànq askan wi lii nag kilifa nitu diine yii ku ci dàq fen sa moom rek nga ne kii wax dëgg yàlla ñii moom dañoo jarul topp wax dëgg yàlla. Eh, ñaar wax mooy lii lan la. li muy jëkk laaj ko fi. Hmm. kon maanaam yow naafile yi ñuy wax naan nan ko. déedéet yooyu caaxaan ah bon. yent salasam bàyyi ko fi léegi wax na waxu yent saasam léegi waxu sëñ Soyebu moo gënal waxu yent saasam pour comme kii li mu wax. te xaw ma sax ndax solution bi moo ko wala kii mais kii daf ko ne solution bi nee na lii bàyyi buum ko déglu leen ci tegaat. maanaam yi. Mm-hmm. na amul ci charia bis mu nekk ràkk bi nga war a def amul léegi ba mu ko tuddalee kii déglu leen. Ah loolu jërëjëf. moom day sama pàq. waa ñu ne bu ñu waxee sëñ son bi sëñ bi day papaam moo ko yeetu sa sana ba pare mu ne bu nee sëñ son bi sëñ son bi dafay papaam léegi kon papaam kon bu ñëwee wax loo xam ne njuumte la du njàngale yentu saa kenn war ko weddi sa papa dafa moom diine gi sa papa sëñ bi daa moom diine gi sa papa kooku noonu ci sos sa yoon woowu xam nu mu tudd mooy seen seen yoon woowu sa sa yoonu baay boobu kooku dafa moom diine gi yàlla dafa ñoo yónni ci kooku yàlla daf ñoo yore ci Maodo Malick yàlla daf ñoo yore ci kenn sénégalais lii moo leen réeral fen yi moo leen tardel ñëpp ragal a wax dëgg borom bi subhanahu wa taala fu nit demee bay wax dëgg ñu tudd ci sëñ Touba wala ñu tudd ci sëñ Soy wala ñu tudd ci Maodo wala ñu tudd ci Baayes amatul weddi seen kàcc kàtt gàlle yii li ma leen wax lu tàdd ci Sénégal ci diine ay duure ay dingat sëñ Touba sëñ Touba bu waxee wax ju jubut wala Alaaji Maalik wax wax ju jub wala bàyyi sax dañuy sànni waxam fële ñu jël waxu Muhammad Sanson ñu teg ko ci yàlla yàlla ci yenn Sanson la ñu yónni billaahi wallaahi seen mag ñi fi ngeen leen teg mu ëpp. fi ngeen teg seen mag ñi seen mag ñi ñoo leen gënal yenn saa kii wedd na yenn saa salaam gë jël waxu seen bi teg ko pour lan pour lan ñemewut pour lan taalibe yi dañ koy ŋàññi pour lan pour jënde bëgguñu kenn ku leen mere ba tax na ñuy fenn di ragal wa dëgg borom bi subhanahu wa taala ñi ay nitu diina la ñi duñ delu ci diina même bu ñuy wax dëgg seen dëgg gi du dëggu ñaar dërëm barke yalla seen galé yi dëgg leen. amul wax. yi def eh, ñaar la bu naan bu bi la. li kon manam ñu nafilé yi ñi wax naan nan ko. déedéet yooyu caaxaan. ah bon manam bis bu nekk naafile dana nga wara def. wa amul ci sharia islami yes déedéet. ah bon loolu déedéet. ñun dañu gis ci xuratu. nee na amul ci charia islam bis bu nekk moom weddi na téere solution yi ba ba bu fekkee moo bind. comme la wax ci comme déglu li tax mu dellu ginnaaw. lii moom a amal solo. du ay solution bu mais wax yi pour lu dëkk yaa ngi dégg moom boo tuddee tur rek man doo a boo tuddee rek du mën a demate ndax sëñ Soy mooy papaam du du jëmmi sëñ Soy moo tax may mais jëmm jàngale naa fekk yi nga xam ne Sénégal ñu ngi koy def dëgg dëgg yàlla la kuy wax xaala laaw xaala rasul lii yàlla wax ak yenn saa na nga koy leeral dëgg yi nit ñi amul ay sëñ bi nee na amul sëñ Tuubaa nee na amul Alaaji Maalik nee na amul Baay Ñas nee na amul lii moo tax nit ñi sànku lii moo tax Sénégal nit ñi sànq même ay fen bu nit jëloon fen sax bindal ko sëñ Souhaïbou sax yow doo ñemee wedd sax fen yooyu ndax comme te sëñ Souhaïbou du tudd na ko ci wala tudd na ci sëñ Touba ñaata fen lan wa fenal sëñ Touba fii wala Alaaji Malik wala sëñ wala kum wala yent bi mais dëkk bi amul weddi dëkk boo xam ne amul jàngale dëgg yàlla ay kii sol kaalaam sol mbaxanaam toog fii li mu weddi mais lii dafa ndoxe dafa dëggantaan day wane ni toppoo leen dëgg dëggantaan day wax billaay seen ñu ku leen topp sànq léegi fi mu toll nii wax ji mu waxoon moom taxaw na fenloo boppam ci lan ci comme li ñu ko tuddal benn say sooy rek mu daaw des subhanallah fu ñu jëm dëgg dëgg bi dañ ci dañ dañ dañ ciy dóor baaraam mag ñi ku ci juum ñu ne mag ñi daa juum. amul lu ñu maanaam julli yooyu ñu ne ñuy wax. tey julli yi dañu war a def tey. waaw euh, tey ñaar rakka la rakka bu naan bu ñeent bi ñëwaatoon li muy jëkk wax mooy lii lan la. lii lan la li muy jëkk laaj mooy lii lan la lii moom bàyyiwuma ko fi. kon maanaam yow naafile yi ñuy wax naan nan ko. déedéet yooyu yooyu caaxaan. ah bon maanaam bis bu nekk naafile na war a def. waaw amul ci charia islamique. Mm-hmm. déet. ah bon loolu déet. ñun dañu gis ci xuratul ay bu sëñ Soaybu mu bind bis bii lii bis bii lii. xam nga boo nee sëñ Soaybu nag. ndax sëñ Soaybu moom day sama papa. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. kii day sama papa dafa am ci diine ci jàngale diine yàlla gi dëgg yàlla gi boo demee wax sa dëgg ba pare wax waxu yenn sens jeex na. lan mooy kii kii sama papa la ba pare fenloo boppam moom ci biir waxam lii kii yàpp sa papa bu dee sëñ Abbas dafa juum sax danga naan sëñ Abbas dafa juum ba prier Abbas sëñ Abbas dañoo royloo sëñ Abbas dañoo royloo sëñ Chouaib lii moo tax seen du question ay contre mag ñi du question mais seen duul seen fen seen ñàkk respect yi ngeen teg ci yent bi salaa salaam yi ngeen ñàkk teg ci ci lii respecté woo yent bi salaa yow mii di wax sëñ bi sàll respecté wul Muhammad salaa salaam léegi ma Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxam jël di nga jël waxi mbindeef bi ko jëlee ay ay waxi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ku mu mënta doon ak tur bu mu mënta am Sénégal kan ngeen yëpp ay fen jàngale fen ba kañ seen paa yi ay merde lan doonte dañuy wax dëgg ñun ay nit yu baax ñun nit dëggu même papaam Baye Abbas bu bu juumee doo ko ne dangaa sa baay dañ ñoo royloo sa baay dañ ñoo royloo sëñ Sohaybu dañ ñoo royloo sëñ Tuubaa dañ ñoo royloo Alaaji Maalik seen kàr gàlle yi lu yàqu ci diine gi fen yu jógee ci fenal yàlla mu ngi jógee ci seen diine yi moo tax lu nekk ngeen wax wallaahi du lay nit. amul maanaam julli yooyu ñuy nekk ñuy wax. tey julli yi dañu war a def tey. waaw euh, tey ñaar rakka la rakka bu naan bu yonent bi ñëwaatoon li muy jëkk wax mooy lii lan la. lii lan la li muy jëkk laaj mooy. Eh, dëgg la wax lii moom bàyyiwuma ko fi. Hmm. kon maanaam yow naafile yi ñuy wax naan nan ko. déedéet déedéet yooyu caaxaan. ah bon maanaam bis bu nekk naafile la dina war a def. waaw amul ci charia islam yi. Hmm. loolu déet. ñun ah, dañu gis ci xuratul ay bu sëñ lii bis bii xam nga boo ne sëñ Suwaybu nag. sëñ Suwaybu moom hmm. yaa ngi dégg. moom boo tuddee tur rek man doo mën a demat. sëñ Suwaybu Mbàkke moo la jur rek. Hmm. Serigne Abbas la jur. Hmm. ku Serigne Abbas tax boo ko tuddee rek man loolu dama dama cee noppi. damaa bëgg kon ñu wax ci leneen. ndaxte sëñ Suwaybu moom eh, kon dama bëgg xam yeneen yi ngay daan kàpp yan la quoi. parce eh, na la wala doy na. doy na ma. léppam doy na ma ba pare wax na lu mu kii kii na ko ah lii kat ñu bind kat dafa waroo ak njàngalee sax li nga jàngal léegi weddi na boppam weddiwaat boppam ndax maslaha ndax ragal ndax tàppete wax dëgg ndax bañ ku leen mere ndax ku ci nekk toog sa kat gàlle seen kalan teg seeni paa ci juum leen paa yi kenn danoo juum na yenn saa dafa leen nit laa comme yéen damay juum te bu ma juumee moom dañ koy wax moom sallallahu alayhi sallallahu alayhi li ko wuuteeg ñun dañ koy woyu sëñ Sow bu kenn woyu ko sëñ Touba kenn woyu ko Alaaji Maalik kenn woyu seen quatre gàlle yi li ma leen wax seen quatre pas yi wala seen cinq gàlle yi wala seen six gàlle yi duul gu am ci diine gi fenn gu am ci diine gi ñoom la kenn du topp nit mutlaqan li nu am imam Malik amu ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam amu ko kenn amu ko ay nit doomu aadama day juum nit ku juum ba xalangu ñu ne kii juum na mais wax dëgg yàlla gi ba pare léegi nga ñëw rectifier say wax kan ngeen yàpp ndax diine ngeen di jàngale sa waay seen kat gàlle yi seen naxante yi seen fenente yi seen tappale yi ku ko topp ba dugg ci bàmmeel war rabbil kaaba di nga xam ma moo gën ngeen déglu seen kat gàlle yi ngeen ñëwaat ci seen fen ba ay kii kii benn grand rek la du ay question ay sëriñ yéen naa si sëriñ du fen sëriñ day dëgg sëriñ da ngay wax xaala laaw xaala rasul nga ñeme ci nga dee ci donte dañ lay rey donte nit ñi dañ lay mere mais dëkk boo xam ne yéen ku ci nekk bañ nga ko la mere barki alquranu karim seen clan yi ngeen àndal ba bàyyi topp dëgg mooy nekkal lu la mënta doon nga ne sa bàyyi li la nekkoon yàlla royloowu leen seen baay ibrahim alayhi salaatu wassalaam bu dee ci wàllu askan ak baay ngeen xool ibrahim dama dégg histoire bu doy waar bu daw yaram baay ibrahim baayam yowmal xiyaam bu fekkonte ni ci ay dirat ngeen xoolee askan yowmal xiyaam yàlla ci boppam da koy wan baayam di ko wan ba mu koy dugal safara di baay ibrahim di wan baayam ba baayam mujj nangul yàlla borom bi subhanahu wa taala ci yow mel xiyam foofu amul sens boo demee ba dee dingeen ngeen xam ne lépp dëgg la yàlla rek ay yàlla yow mel xiyam yéen wax yëpp ay fen la li leen expliqué yëpp mais bàyyi Ibrahim ba mu demee ba kii yàlla pour yërmande pour rek Ibrahim bañ lu ko metti mu soppi bàyyi Ibrahim mbëtt sànni ko ca safar yooyu yëpp war ngeen ko sóoraale lii seen karan yi ngeen def ni seen groupe yi mel ni ay équipe néewtaan Galle Bamba mel ni mooy équipe nangam sangam gàlle alaaji Malick Maodo mel ni mooy équipe nangam sàngam nga dem gàlle Baye Niass mel ni ay équipe newataan di gënante ay ëppalante gënalante gën a mën a duutanteeg bal barki alquranu karim ku ci dee sa baay même bu nekkoon ci ak bokkaale borom sax ak fenn ah, booy boo mu doon taalibe Maodo booy boo mu doon taalibe Bamba ku mu mënta doon ku ci dee ci yéen ci ngeen di tàggoo seen ndey ak seen i baay dinañ leen takk ba ngeen dëgër génne leen seen gaal buñ leen dégagé ci gàlle bu yëpp leen ci jàkka ja wallaahi buñ leen sang da ngeen koy yëg ngeen bàyyi seen kër bàyyi seen lépp ñu de leen dut ci armeer ya ku ci dem di ci yaakaar Maodo wala Serigne Abbas wala El Hadj Malick wala Baye Niass ay duuli kase dana yàlla dana leen fekk foofu ku ci weddi Mahama Sam dina fudd seen njëg ba ngeen xam ni yàlla rek ay yàlla ay duuli kase kase kase leen suñu tarixa yi jàngam ku ci dàq duul sa morom nga def kii kaay leen déglu kii doom surtout El bi ay sët ay sëtu Bamba ki Maodo ñooñu rek a fiy ci dëkk bi di amer la nit ñi ba kañ merde waay ñi ay ñan lan déglu leen foofu la suñu waay jàmbaar maa la ko wax Cheikh Cheikh foofu la nekk jàmbaar moom nga boo bokkee ci tariqam liggéeyal bay bëgg a dee la ngay liggéey du la dugal àddina grand bi fen yi muy fen ngeen bëgg a toog yéen dëkk bi ngeen dëggal ko sëriñ si dëggal ko di seetaan nit ñi ci ay ñuy toog di fen taalibe yi nii di sànq taalibe yi yéen sëriñ si ngeen mën ko seetaan yéen yéen a bon yéen a yées ngeen mën a seetaan waa kër Maodo gi ku ci dàq duul nga ne kii waa kër Bamba ku ci dàq duul nga ne kii waa kër Abbas ku ci dàq duul nga ne kii tarixa yor duul rek ba kañ merde seen duul yi moo doy mais kii li muy wax nii xam ngeen di day fen kii grand bii du ma ne paa bii grand frère bii kii day duul li mu wax du dëgg mais lan lay toogee fii naan yowmal xiyaam lii du sànq nit ñi du tax nit ñi léegi topp ci tariixa teex seex wala topp seex fekk ay duuli kase yéen lu leen métti yéen du dëgg yàlla borom bi sant yéen daal yéen daal xa waxu yàlla ko yantam mooy li leen métti déglu leen ko. nee na seen waa ji foofu la gën a nekk jàmbar seex déglu leen ko. Cheikh Tidiane foofu la nekkee jàmbaar déglu leen ku dàqa duul nga ne kii déglu leen liggéeyal bay bëgg dee la ngay liggéey du la du dugal àjjana déglu leen ko lan mooy dugal àjjana nit yàlla suñu wax ñu ko ci alxuraan ba mu leer maama saasam wax ñu ko ñi ñeme yàlla ba ba ba jàpp ni sax gën a saxaaba jullil wooral azaka du la yóbbu àjjana yàlla lan la wax ci julli ku dul julli lii moo tax nit ñi dun julli lii moo tax nit ñi sàgg na julli yow mal xiyaam lii lay njëkk a laaj moo julli julli ko bu wér sa dara wér mu ñëw weddi waxi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax koppateem bu rëy ndax doomu Maodo laa doomu Maodo laa di askan wi rek ki ci doomu Maodo laa boo fenee da la naan da ngay fen gannaaw kii day fen woo leen nit ñi ci tawhid woo leen nit ñi ci bàyyi bokkaale bàyyi fenal yàlla ku fi fenal Macky Sall Macky Sall ne la ci kaso bi ku fi fenal Macky Sall la Macky Sall ne mais ngeen fenal yàlla ak ab tam ana nitu diine yi nitu diine yom ku dàqa fen sa morom nga ne kii doo leen bàyyi seen fen yi arrête stop kii day fen wawul dëgg déglu leen ko déglu leen comme li mu wax ne julli mayewu la dara léegi yow ma xam su julli ngay julli kon daal ñàkkal solo julli ñàkkal solo azaka azaka ya soppi ngeen ngoon addiya doo leen toog mukk bay wax nit ñi génne leen zakat zakat xam ngeen ni ko war a jox du leen ko jox yéen dañ koy jox ñiy tukki dañ koy jox fakkiir yaak miskin ja zakat arrangé wu leen moo tax addiya ngeen soppi zakat yi pour seen bopp di duul askan yi ba kañ merde yéen a mën a fen sëriñ si wa rabbil kaaba wallahi yéen na mën a fen wa rabbil kaaba yéen a mën a fen allahuma la kitaabi sari al xisaabi azim ahzaba allahuma azim wa zajalum yéen a mën a duul wallahi doo leen ay nit baaxoo leen ñi gën a yées ci askan wi yéen la day fen day fen fen yi ba kay suri si ngeen ñuy seetaan ci fen yi ñuy sànq askan bi askan bi duñ julli duñ woor gëmuñu dara ndax yéen ndax seen fen yi nekk taalibe seex comme nan après li doo julli doo woor julleeg azaka mu ne du yóbbu àjjana kii moo mën a fen alquran moo ne li ma yóbbuwaate àjjana julli azaka comme yi nga xam ne yàlla digal na ko muy jaamu yàlla doon ndigal ak tere ndigalu yàlla yi nga topp ko li la yàlla tere nga bàyyi ko pas ay ndigalu keneen mais kii li mu wax nii du maamam Maodo bu ko bind du kenn ñii ay jaahil lan ay fenkat toog di fenal seen maam yi kii Maodo li mu nekk nii Maodo nekk ca woon Maodo nekkul woon ci lii kii benn bandi la benn xaj benn fenkat ànd ak ki moroomi fenkatam ñoo xam ni boo demee kër Bamba espèce xaj yi mel nii ñu ngi fa boo demee kër Maodo noonu ñii duul rek lañ mën du ay nit ñi bëgg leen toppee sànq war rabbi kaaba déglu leen moo gën ngeen dégg ma te partage bu yàgg sama gars sëriñ bi kenn mënul layal waxam ay duuli kase ak bëtam yi mel ni bët ump xaj yu dee yi ñii rek du nit kii moo mën a duul la kii wal nga wax say waa kër ba mu doyal la ngay julli da ngay woor ngay wër koo ko jox yow yow fii tuyaaba yomal xam dafay doy nit ñi am problème si Siddiq naan bu sànnee tànk tànk ndey yorom manam du xalaatu sax càmmoñ ba sax dana dugg àjjana ñooñu am problème àjjana da nga kaa mën a jënd ah toog foofu di yombal àjjana gi di fen rek yombal àjjana gi keroog moo taxawoon fii naan papaam sëñ Seex li muy lijjanti bu ko lijjantee waa Sénégal yëpp dañ dem àjjana sa papa sëñ Seex lan la mën a lijjanti ba yóbbu waa Sénégal yëpp àjjana xoolal yi la duul xoolal yi la sànq yéen seen paa yi toog fi am ay taalibey fenkat taalibey kàcc kat buñ waxee ñuy dóore di mel bëkk mbir seen paa yi ku leen top torox wa rabbil kaaba dem leen dund ci seen diine yalla ñu yalla tek ci siraatal mustaqim yalla won ñu dëgg ba ñu xam ko mu tek ñu ci saxal ñu ci ray fi ci ñu ci mo ñu caaxaan ak i ak fenn ba ñu xam ko ñu gaspax bu mu xoot waq ko ak suul ko nappaajo ko yi dëgg yalla gi mo leer li ngeen di dégg ci whatsapp yi di ko déglu ci facebook gi wallahi pour yee wootul si jamono gi ya bëgg rir bu ñëk suñu ñom bàyyi man dañ leen di comprendre ndax sunu bàyyi jamono yi whatsapp amut jamono yi ay facebook amut jamono yooyu fen yi kenn mënu toog di ko découvrir naan ay fen dan naan ku fi tudd wàllu yi da ngay dan lay soppi golo loolu la nit ñi gëm mais dëgg yàlla gi leer na ñun dëgg yi ñuy leeral di ko teg nii mu leer naañi ku topp suñu sëriñ si xaj nga ku bon nga dangaa bëgg a bon mais dëgg yàlla gi leer seen fen yi moo doy daf ñëpp war a ñëw jàpp ci combat jël kaat gàlle yi teg ko ci Sénégal ah ñëw teg ko ci senegal kaat gàlle yi ne yeneen gàlle yëpp nun dara te kaat gàlle yi ku ci jàq du sa morom nga ne nii bayloo fenal yàlla fenal yenn saa waaye dëgg moo jot sa waaye leen ngeen jàng seen diine tey déglu ki leen wax xaala laa xaala rasul ngeen jàng seen diine xam ne ku dee ak sa bàmmeel xale yi ngi dee mag ñi ngi dee wallaay seen caaxaane ku ci dee dugg safara yaa lakk sa bopp lay amatu sunu papa yi nag yàlla leen yàlla yërëm ndax ñooñu dañ leen tënkoon man mii démb taalibe laa woon man gëmoon naa ne bu ma ci dee woon xëj na yàlla baal ma ndax xamoo da ngay ñëw lii la indil kat gale yi gàlle bamba lii la présenté mooy bamba bamba yàlla la nga topp ci ginnaaw di bàyyi tool ñàkk a xam moo ko waral boobu xam-xam tuuru mais léegi xam-xam tuuru internet baa ngi fi boo duggee nga dugg ci kii bi nga tàppe xul wallaahu at lu muy firi yow mi jàng angale wala leneen ñu firi la xul wallaahu xul wallaahu ahad xul wallaahu ahad bu buñ la ko firilee lam yelit walam yuulat boo déggee ni yàlla jur kenn te kenn jur ko nga dégg kenn taxaw fee ñu naan la kii bàmbaay maamam ki leen mu naan la yàlla na xamal ni ab fenkat la kon jàngi leen alquran ngeen di déglu ay tafsir alquran sëriñ si ngeen di wax dégg ngeen xam ni mbir mi du ay mbiru kat jàlle mbir mi jàngale ngeen jàngale te yàlla tax yàlla fay leen li ngeen di woote ci yoonu yàlla ñëpp na ngeen di woo nit ba pare même bu dee da ngeen di woote ci dëgg ngeen takk ko jàmm bu ngeen wootee yàlla moo leen fay nit kooku la mu def moom la concerné yow li ngay def moom yow la concerné mbokk ndaw yi yeewu leen utiliser seen seen xel yi seen kàddu yi li ma leen di wax rek wa kaa ba fekk yéen a leen topp di ngeen takk ci buumu jaam muy ci wàllu politique ak lu mu mënta doon yéen di ngeen ñàkk kersa yàlla. ndax lii yahut yi ni nu mel amul problème ndax yahut yi danoo ñëw nekk ay yahut ne gëmuñu lislaam gëmuñu yàlla gëmuñu yenn saa salaam yëfar yi ñeneen ñëpp weddi ay aate wala keneen ne gëmut lislaam mais yéen ngeen nekk ci biir lislaam ni ay jullit ngeen ba pare nekk ay yéefari ñuul kukk di woote ak cànkute di woote woo yàlla di puus jàngale ma sallallahu alayhi di woote woo ay fen di woote woo ay ngëneel yoo xam ne dara du ci dëgg di woote woo di maye àjjana yéen yéen yëpp yàlla xajamal lislaam bi fecc ci way caaxaan tappale fen ku ci dàq kàcc sa morom nga ne kii koo leen yàpp koo leen yàpp li ñu gën a yées gën a bon mooy seen paa ndax bu doon nekk ay yéefar lañ kenn du wax ñoom dañu xam ne kii kufur la yéefar mais ci lislaam lañuy woote koo ci wax mu ne dag maa takfir ba pare tegoo leen fenn Muhammad sallallahu alayhi wasallam kan ngeen yàpp booy utiliser leen seen xel yi yàlla na yàlla mi nga xam nag moo yor dëggam te moom ko te di aar nit ñi te di maye jàmm yàlla nañu yàlla jàmmal allahuma anta salaamu minka salaamu tabaaraka wa taala ya zal jalaal wal ikram yàlla nañu yàlla dooleel yàlla na yàlla ba seen taalibe yi di dof dof lu di mbëkki miir yi di konkonlu képp koo xam ne bëgg nga xool ma bët bu ñaaw man mi lu jóg wala bëgg dara ci man yàlla na la yàlla teg ay problème yu la doy sëkk sëkk sëkk toroxal sa ndey ak sa baay ngeen xam ni seen sëriñ si dund yàlla seen duulkat yi bu naree tax bi ngeen dal sama kaw yàlla na yàlla teg leen ay problème yéen ak seen duulkat yi ngeen xam ne seen problème ngeen di taal doo leen ma sax taal doo leen ma sax gis subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ñu leen di fàttali weeru koor gi weeru koor gi Sénégal fii laay tëjee ak ñëw na weeru koor gi ni ñu tàqalee jullit ñi ay feni kase la ngeen xam loolu partage leen yaa partage sot la bokk sëriñ si am ngeen combat muntaxaa bu taxawee mëcc xalifa général mu ne kullu murit leen di woo ci comme bu ngeen déggee seen tijaan yi ndax ngeen tasawu benn lañ yéen a ko wax tijaan yi ne gis na woor wari leen mbay si maasoor ma nekk ci taawoon mbay zoo bu taxawee mu ne yéen tijaani képp koo xam ni topp nga Alaaji Maalik gëm Alaaji Maalik bu murit wootee woote woo leen waa kii googu génn sànq de xaw ma waa kër kan mooy paa bi ma teewoon sànq muy wax noonu xaw ma xaaral ma déglu waa kër sax kàccikat bi xaw ma xaw ma kan mooy maamam duur rek lañ mën seen paa yi mooy paa bi ma ñu soof lañ def sax jaruñ mu toog expliqué loolu maanaam bu ko defee incha allahu rabbi gars yi déglu te Sénégal duñ ay duñ ay patriote duñ ay jullit yoo xam ne dañuy topp alquran ak sunna teg ñu fenn yàlla teg ñu fenn Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxi Muntaxa moo leen tax a jara dee Serigne Touba moo leen jara dee Alaaji Malik moo leen jara dee Maodo moo leen jara dee ndax kii wane na ko carrément doomu Serigne Abbas gi wane na ko carrément carrément wane na ko waxu yett saasam na ko sànni fële ginnaaw ba ci tuddee sëñ soxna bi sallallahu alayhi wasallam amatul place eh, ñaar bu yentu saa sam ñëwoon lii dafa naan lii la moom moo ko wax moom ci boppam ci laamiñal boppam yéen ñëpp ngeen doo ko ki ko mu yàpp te dëgg la te li mu wax lii mooy tiire bi lii la Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax dëkk boo xam ne amul jàngale dëgg amul wax dëgg ay fen ndax ragal tàppet ndax ragal a wax dëgg yàlla bu ngeen ko ragalee wax yow mii sawaay waay doomu sëriñ boobu man de du ma doomu sëriñ kenn xamul sama baay waaye wallaahi ma taxaw ni ne da ngeen di duul waxoo leen dëgg ñu wax dëgg borom bi subhaanahu wa taala li nga njëkk a wax mooy dëgg li ay fen la du benn dëgg kenn roy la wuñu sëriñ Souhaïbou ay fen yi kese nga ci dolli xam nga ni yow mi toog fen loo sa bopp li nga def noonu ku ñàkk ku doyee dëgg dëgg yàlla bi jaral na leen lu ne ngeen jaay. Eh, ñaar rakka la rakka bu naan bu yonent bi li muy jëkk mooy lii lan la. kon maanaam a def. waaw amul ci charia islam yi. na ko te lii mu wax mooy dëgg lii mooy mooy mooy dëgg wax dëgg ba pare ban tuddee sëriñ ba rek muy ndax respecté wu leen yàlla ragal nga Baay Faal ya nga murit yi mere bu dee ci Maodo tamit noonu la demee ay duul ba kañ mais wax leen dëgg yàlla gi jeex na ku bëgg jël bu leen ci forcé nit nag mais wax leen dëgg gi nga xam ji jóge ci yàlla ne leen lii du dëgg lii wérut ni nga ko waxee nii jeex na mais wérut après xool leen lu mu ci tegaat. ñun dañu gis ci xuratul ay mu bind bis bi lii bis bi lii xam nga boo ne sëñ Soaybu nag moom day sama papa mm-hmm. yaa ngi dégg moom boo tuddee tur rek man doo mën a demal sëñ Soaybu Mbàkke moo la jur rek mm-hmm. Serigne Abbas la jur mm-hmm. ku Serigne Abbas jur jur moo tax boo ko tuddee rek man loolu dama dama cee noppi. Mm-hmm. damaa bëgg ñu kon ñu wax ci leneen. Mm-hmm. ndaxte sëñ Suhaybu eh, la parce que mais lim bi doy na la wala doy la. léppam doy na ma. maanaam sëñ man xuraat la. waaw léppam doy na ko ngi noonu wax na dëgg ba pare léegi ban ko nee sëñ Suhaybu mu jënd mu daw ñemeetul wax dëgg yàlla gi ba kañ mais ni nga ko ragalee wax man maa ciy tuut baaraam ne la sa wax ji jëkkoo mooy dëgg li nga ci tegaat ay feli kase la li nga jëk wax ci Muhammad saa li Muhammad saa sam wax moy li wër li kenen indi lu wuuteeg njàngale yéen saa sam loolu du wër du dëgg du diilé kon bokk sénégalais ngeen ragal yalla bon sant di leen wax seen seen dëkk bi moy li kon koor gi ngeen jéem a góorgóorlu xamni ni seen koor gi tamit wëru ni ngeen jëlé koor ci mi ngi joggé ci seigne touba manam ni ñu né ku wër ko da koy ski da koy taggu rajab du dëgg Raja da koy taggu du dëgg rajab wul Muhammad alaihi wasallam tàgguwul Aboubacar Siddiq tagul benn yonent wer ko kenn du ko sento ci comme seigne bi wer moko fen ni ñi ngi koy séentoo ci ni ko yenn sa soo ni ngi ci soba soobaan bi nek bu matee fan wer manam après jappani wer ko ki na bu ki wut ñu sento ko comme ni ko yenn sa sa jàngalee mais benen jàngale yi ngeen koy jangale du deug wer ko kenn du ko wé ci ay gént du ci imam mal du ci kenn kon Lima ma leen wax seen kat yàlla yi mën nañ li koor gi seigne muntaha ak kii mbay si maasoor ak ñoom ñëpp mën nañ boole ñu ànd ñu ñu wax taalibe yi ndax Sénégal comme li ma leen wax yéen yàlla ak yéen saa sam respecté wu leen yàlla respecté wu leen yéen saa respecté wu leen kenn. Venetia ñu ngi lay delloo siyaar baax di la bëgg xam nga respecté wu leen kenn waaw respecté wu leen yàlla respecté wu leen kenn ci ay caaxaan ngeen nekk ci ay tappale ngeen nekk ndax. bu dee waxu yàlla wax yonent bi ngeen sànni fële léegi waxi Muntaxa da ngeen koy jëfee waxi Mbay Si Mansour da ngeen koy jëfee tariixa yi bu ñu toogee ñoom ñëpp ñu toog moo gën seen fen yi ni fen nii ci télé yi moo gën paa bii ni fen nii mu toog ne ah man de maa ngi fi toogal sëñ Abbas kii ne man demaa maa ngi fi toogal Maodo kii ne man maa ngi toogal Bamba ñu toog ñoom ñëpp ñu wax ne ah gis nañ Sénégal ñaari koor ñaari koor du alxuraan du sunna ay feni kasa la ay tappale kasa la jullit ñi na ngeen ànd woorandoo woorandoo mais duñ ko def barke alxuraan kam duñ ko ay ay faramason lan ay xex l'islam mo len taxo jog dul ay nit yu bax dul ay way ci diine kon talibey kon ku ci serigne bi jox ndigal ko ci koor gi ta fekk ki wut wallahi bo bo wor andil ga sa bop problème bo wor da ngay tiaxan da ngay tapale rawta ñu lay digal ñàkk ko seen pa yi jar ñu deglu ndax won Macky Sall lu waa Macky Sall yi bam fi waxe ci buñ julli seen gam yi seen ki nañ ko bayiko ci nekk da nga toog ba ba ba Macky Sall joxe ay ndigal ndigalu Macky Sall duñ ko moy duñ mooy ndigalu gouvernement ndigalu yàlla nag bu alkaati ba ak yooyu malaaka yi ñoom lañ ñeme kon mbokk Sénégal yi nañu ànd woorandoo ku dégg sa mbokkum taalibe ne la ah gis nañ weer yi mu doon ku wér ñun ñëpp ñu ànd woorandoo mais yi tarixa yi jàngalee ci koor ji tàqale ko kooru ba kooru Maodo yooyu jamonoy Maodo amul woon ay duuli kase la subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wax ji ko métti nga màtt sa bakkan képp koo xam ne yaa ngi bañ Médoune Diop Watawassal bil haq ah, di ma tëkk wala di ma móolu bu dee ñaan bu bon yàlla na këpp ci sa kaw sëriñ waxuma da ci yow bu fekkee lu bon loo ma yéene ci barkeb laa ilaha illallah ci barkeb soxbaan ci barkeb ramadan gi di ñëw yàlla na la yàlla teg ay natt ba nga xam ni man de li ma bëggoon yéene Médoune Diop natt googu la yàlla teg ci sa kaw ba dooma taal yàlla boole matal yàlla rek am doole mooy ki am xéewal mooy ki am jàmm seen sëriñ si deenan dul ay dul seen bàmmeel yi boo leen fa demee ay ki jëfe nungur xaw ma nu koy waxee mooy yax boobu nëpp nañ ba dee ba saxi lekk leen ay yax yi kala ngeen fay fekk fi ngeen dem di ñaan ci xabre ay yax ngeen di ay yax du la tontu ay nungur xaw ma nungur mooy affaire boobu de di di kii yaxu ginnaaw googu nga xam yàlla moom lay dékkile jaar seen paa yëpp génn di toog fii aj seen bàmmeel yi kii ko noonu wallahi bu ngeen demee ba sulli leen ay yax ngeen fay fekk yax kon ay yax maanaam mënul leen dara ay yax deful leen dara man yàlla azza wa jalla mi rendi seen baay yooyu mi rey baay mi rey ñëpp rey yonent ya rey xutbu ya rey nit ñu baax ña rey Bamba rey Maodo rey Baay Ñas ba pare ngeen naan ñu deewuñu yàlla azza wa jalla boobee moom laa yaakaar yaakaaruma lii damaa set yett ci li ngeen bokkaale ci lu dul yàlla yàlla rek moom mooy yàlla mooy al ahad as samad qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulat walam yakul lahu kufuwan ahad ku fi taxaw naa leen bamba yàlla la day duul ku fi taxaw naa leen Maodo yàlla la day duul ku fi taxaw naa leen Baye Niass yàlla la day duul yàlla kenn la moom kese ngeen war a jaamu waroo leen jaamu keneen ku dul yàlla bàyyi bokkaale borom sant la topp alquran ak sunnata Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ji ku metti nga màtt sa bakkan wala nga bëkk miiri asalaamaaleykum wa rahmatullah